بسم الله الرحمن الرحيم بكجلني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غنا بنيو لين نيو زيار لين نافلة ني نيلي تدي لي دون ليدون ركعة بنك يانكي جانج فاتحة يون تبر يدا أبي الله بن يون قل هو الله أحد يون wax nañ ni képp ku ko def daañu la bindal tiyaabo muñkat yi ak ñi nga xam ne dañuy sant yàlla waaye daañu la bindali tiyaabo ku wàccee kaamil ak ku jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at yu ànd ak koor RDV di leen ndokkeel ci koor gi te di rafetlu seen ànd ak moom asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillah